mbokk Europe ak états lu bees tax juddu na ci réewum Sénégal ñeel wàllu tabax loolu lu mu xanaa entreprise TRTP Touba réalisation travaux publics lépp lu ngeen bëgg a lu moo xam dëkkuwaay villa grand ak moyen standing wala immeuble wala bérébu liggéeyukaay wala juma wala jàkke wala ngeen bëgg a def transformation intérieure ci seen biir kër wala ngeen bëgg a changer seen xar kanamu kër dama ne mbokk yi TRTP Touba réalisation travaux publics moo ci gaaw moo ci mën te moo ci gën a xarañ ndaxte ay liggéeykatam ay jàmbaar la yéen ñi nekk bitim réew wala sax yéen ñi nekk ci biir réew mi njaaxare jeex na am ngeen nag ku leen di tabaxal ci ay plan yi ngeen bëgg jokkoo leen ci ni mu gën a gaawee ak TRTP Touba réalisation travaux publics seen aaju faju te du ngeen sonn te kenn du lubal seen xaalis TRTP su ngeen xoolee seeni makket yii xool it seen plan architectural yu yànji yii ngeen xam ne ay tabax yu mucc ayib yu ànd ak kaaraange la ñuy defar TRTP Touba réalisation travaux publics noo ngi Dakar cité port kenook juma Masalikul Jinaan lépp lu ngeen bëgg a xam ci TRTP mën ngeen ñu dugg suñu site web www.toubartp.com wala ngeen dem ci Facebook Instagram wala YouTube bu leen neexee it ngeen woote téléphone

mbokki Sénégal tey ñoo ngi fii ci dëkkub Serigne Touba bi dëkk bu tedd bi ànd fekk Abdou Aziz Aly Ndiaye doomi góor gi Aly Ndiaye jigéen bi tey mu ñëw fii seet si ki nga xamante ni mooy Serigne Mountakha di Serigne Touba mu sotti mbokki tey Abdou Aziz nga ñëw fii tey fekk fi Serigne Touba sa fekk fi Serigne nga ñëwee Aziz tey ba dëgg ci biir dëkkub Serigne Touba bi lan nga yëg waaw alhamdulilah di sant yàlla bu baax a baax di nuyu mbooloo mi ma àndal yëpp di ko commencé ci suma mag suma xalifa muy masata ak sama xarit yeeg suñu am di jàmm yi suñu papa xaalim Samb ak mbokk yi ñu àndal ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am mbégte nag bubaax baax ci ñëwaat Touba euh, li ñu gën a kontaan loo ci ñëwaat Touba bi rek mooy at mu jot buñ koy def dañuy dem ba ci sëriñ kër si Mouhamadul Mansour di xalif général des Tidianes tàggu ko laaj ko ci ndigal mu jox ñu ci ndigal ñu ñëw fii ci Touba fekk fi nag magum yàlla moo xam ni ñëpp xam nañ mbaaxam muy suñu maam suñu baay suñu sëriñ mun Muntaxa ñu koy ñaanal. yàlla na yàlla guddal fanam yal na ko yàlla yokk ñëw bi ñu fi ñëw daal te di ñëw bu war di sénégalais ku ne xam na ne Serigne Touba patrimoine national ñëpp ko bokk suñu maam Serigne Touba bis bi muy santale yàlla nag ñun ñëpp dañ ci war a jóg ñëw fii ci Touba tuur fi suñu ñax ak suñu doole ngir santale ko yàlla subhanahu wa loolu bokk na ci li ñu fi indi ñu ci kontaan nag di ci ñaan yàlla rek Serigne Mountakha mi ñu fi fekk moo ki rakkam ak i mbokkam yëpp yàlla na yàlla guddal seen fan yàlla kattanal ko yàlla dëgëral ko yàlla nag moo def ñun dañu am cofeel bu spécial nag ci mun taxaa dañ ko bëggal rek suñu bëgg bopp te yàlla rek tax wax dëgg yàlla. dañu gis nii jëf yi ngay jëf Tivaouane boo ñëwee Touba jëf ju mel noonu ngay jëf. Touba ak Tivaouane bu ñu xoolee da nga xam ne ñoo bokk maaram Mbàkke bi nga ñëwee tey fii ba jàkkaarloog Serigne Mountakha dafa mel ni da mel ni ku toog ak Serigne Serigne Serigne Babacar Sy Mansour taalibe Seydi Hadj Malick ñëw fii te ci dëkku Serigne Touba bi lan la Abdou Aziz Al Ndiaye di wax waa waa àddina waaw xam nga ñun moom yàlla dafa def ñuy taalibe Seydi Hadj Malick waaye dañu amul xaj ak seen nag ci suñu maam Serigne Touba ak Seydi Hadj Malick mhm. ñun ay ay ndonga lañ yoo xam ni dañuy taataan lu baax rek fu mu nekk ci àdduna ñu fas yéene fa dem looloo tax bu ñu ñëwee Touba dañ fi gis suñu bopp ndax Seydi Hadj Malick maam Serigne Touba li ñu bokk ñoo ko bokkee ca maaram bu ñu ñëwee fii suñu bopp lañ fiy fekk bu ñu demee Tivaouane suñu bopp lañ fay fekk looloo tax ñëw Touba bi mbégte rek lay doon saa su ne saa bu ñuy wàjji ñëw Touba dañ ci kontaan dañ ciy bég lool ndax dañ ciy ñëw ci kaw ndigal te ku na xam na nag suñu turandoo bu baax ba sëñ Abdoul Aziz Al Amin ni mu doon liggéey ci diggante ñaari kër yi digganteem ak sëñ Sidi Mokhtar fexe ba Sénégal di julli benn julli di wori benn wori kon loolu ñun dañ ko war a doxal kon ñun ndaw yi nga xam dañu nekk ci tarixa yi dañu war a xam ni tarixa yi dañu war a ci liggéey pour ñu bokk nekk benn ndax lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax looloo sabab nag suñu ñëw fii ci si as ñëwal ma rëcc ma jëf. alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf nag di am mbégte di kontaan trop ci suñu ay xarit yi nga xam ne ñëpp dañuy bàyyi seen yitte yi ñëw ñoom Balla ñu ngi fi ñoom Mansour Cheikh Ahmed yan Samb ñu ngi jóge ba Mbour Bayali ñoom Fallou Mbacké ñoom Ñaaxareñ Lo mbooloo mi ñëpp ñooy bàyyi seen yitte. ñoom Maas Babacar suñu rakk dañuy ñëw fii ñëw bi ñuy ñëw nag ñu ngi leen ciy sant di leen gërëm bu ñu ñëwee nag dañ bi fekk suñu rakk ju baax muy Mouhamed Silla moo ñu fiy dalal moo fi suñu bunt wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax xam naa ne bu ñu jógee ci sëriñ bi rek dañuy dem ci sëriñ Bass Abdou Khadir suñu xarit suñu wóllëre buñ fa jógee itam dem ci soxna si nga xam ne. Aziz daaw sëriñ bi dafa laa teral jox la course. la sijaada jox la kaamil tey ñu ñëw mu mel ni course gi la bi joxoon daaw moom laa gis nga yor ko. waaw sant yàlla loolu day wane ni rek la ma joxoon daaw fonk naa ko. ndax maa ngi ciy ñaan yàlla te di ko ci ñaanal. loolu tax ma téyewaat ko ci sama loxo ñaan naa ci yàlla bi may ñëw ñaanal naa ko ci tam yàlla na ko yàlla yokk fan. yàlla dëgëral ko ndax sëñ Muntaxa moom mën naa ne patrimoine international la ñëpp ko bokk. jërë ngeen jëf macha allah. waaw lu gàtt rekk laay wax. Aziz dafa wax. li mu yéeg waaye jëf ji nag maa ko mën a wax. ndax moom mën naa wax yéeg yéegam waaye jëf ji li muy jëf ci diine du ko wax fenn. tey li tubaab di wax événement historique tey bés bu historique la bu solonel ci lislaam ndax li Abdou Aziz Ndiaye def at mu ne. ku fi toog di Serigne Touba mu sarse ay nag sarse ceeb sarse diwlin sadoor sarse vermicelle sarse macaroni ànd ak magam ànd ak ay rakkam ànd ak ay xaritam ànd ak ay soppeem jëf ji mu jëf mooy jëf ju taaru Abdou Aziz la tudd Alaaji Ali Ndiaye ko jur alima jigéen ko jur siy jaaj maa ngi yaakaar ak Bamba waaye dafa xam diggante maam maaram ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul moo tax ma ne Abdou Aziz Serigne Touba gërëm na la taayib taalibe yi gërëm nañu la ndax jëf ju taaru jii mu jëf gisaguma ku ko jëf ci beneen tarixa boo bokkul bokkoo ci maanaam tarixa bi ci la bokk waaye nag dafa ñaan wir di jébbaluwul at mu nekk mu chargé ay oto ñëw ci xalif généralu murit sukk ci kanamam sëñ mun tàqaani ko sama xol sedd na bég naa maa ngi lay ñaanal yàlla nga gudd fan ñaanal la nga wér ne ko xam nga sa diggante ñaari maami yi seen taxawaay kon Abdou Aziz lii mu def tey ñoo ngi koy ñaanal yàlla na ko gën a man jëf ju taaru ji nag wax dëgg yàlla Ndiaye li nga jëf rafet na sarse yi nag ñëw Touba te yaakaar Sey Jaaj Malick xam diggante kër sëñ bambak ak Sey Jaaj Malick di kenn ndax maam maamara maam maaram moo leen meññ nga daje nag ak sa maam sa baay sa xarit kon na sant yàlla te na sa xel dal jëf nga loo xam ni lii tabaarkàlla macha allah di ndokkee nag sama doom Cheikh Tidiane Samb bii nga xam ni dafa taq ci yow tey sama doom ma doon ànd ak baayam di ñëw fii di ndokkeel Balla Gaye bii la topp di sa doom di ko ñaanal yàlla may ko ay ndam ci kanamam ndax péete dafa metti ak Balla Gaye numéro 2 di ndokkeel mboole Balla Gaye 2 di ndokkeel sa xarit yi nga àndal di ndokkeel baay di ko ñaanal yàlla guddal fanam Masata jërëjëf waxoon naa la nela la bi nga juddoo yow Masata njaay soo rabban sa bopp mbaa nga tekki jaaro gone yi def ko waaye da nga leen kaay leen lu baax ndax maa jëkk a kon Abdou Aziz li mu bëgg mooy na ñëpp xam ne baay mooy sëriñam ndax baay aaley sëriñam ah, kon ñu ngi lay ñaanal njaay yal na sa fan wi gudd li nga jëf de gisaguma ko ko jëf yal na la yàlla teral